yépp liñ ko waxoon mooy boo jàppee Sonko dëkk bi tàkk te moom dëkk asalaamaaleykum Sénégal ngeen gis maa leen di nuyu di leen ziare di leen ndokkeel ci màggal gi mu ñaan yàlla nañ ko fekkee at yu bare bari at mu ñëw rek li ñu ci jaamu yàlla daal ko nangu ñaan yi ñaan yëpp yàlla nangu ci barke alxuraani karim euh, tey moom jàngat bi ñu def ci candidature bu président Ousmane Sonko lañ koy jëmale di alert patriote yëpp ci alerte bi nga xam ne moom la papale ñaa def démb mooy ne gars yi fi ñu bëgg langaamu léegi mooy ne konti contumace mooy li ñu àtte woon président Ousmane Sonko ci mbirum Adji Sarr ne deux ans lay tëdd kaso condamnation boobu mu ne condamnation définitive la ne noonu lañ ko bëggee condamnation définitive te xam nga boobu contumace lañ ko àtte maanaam keroog bañ ko jàppee même buñ ko ramasoon buñ ko jàppee lañ ko àtte woon yëpp dem na à zéro dañ koy àttewaat waaye si loolu nag lañ bëgg a langaamu moom lañ wax Ismaïla Madior Fall fenkat bu mag bu mu wër def propagande pour wane ne maanaam condamnation boobu Eh, maanaam définitif na kon maanaam jeex na daal Sonko du doon candidat mais léegi lu ñu bëgg mooy eh, eh, dossier bii nga xam ne moom lañ ko mujje jàpp ñu ne boobu su boobaa dañ ko si may liberté provisoire bale moom ñu ne boobaa mën naa am sax ñu gracier ko daal di ko génnee mais nag bu la grâce bu la président mayee grâce fekk àpp bi nga waroon a tëdd jeexul yow say droit civique maanaam da nga koy perte ma ne daal fii ak deux cent président Ousmane Sonko du mën a doon candidat ci benn élection loolu la Pape Alé Niang wax ne moom moom la ñu xelal président Macky Sall ne ko mu def ko kon ñu xam ne maki ba tey ay pexe yi mu nekkoon maanaam bàyyiwut ko mu nga jëm ba léegi kon waa ji ba tey kon waa ji nañu xam ne maanaam bàyyiwut Macky ba tey mu ngi ci pexe yi mu nekkoon ngir gàllankoor président Ousmane Sonko pour mu jiite réew mais patriote yi laay wax maanaam mbiru cacophonie biñ bëgg a dugal ci xel seen xel yi loolu na ko nit ñi raxas ba mu set wécc wécc wécc comme man nii di wax ak yéen nu ma ko raxasee sama xel ba mu set man jàpp naa ne ay élection fii ci senegal amul ku ko fi mën a def te président Ousmane Sonko doonul ci candidat parce que lu ko taree mën a doon loolu dafa amut te élection yi ñuy jëm ay sàcc ñoo xam ne maanaam àdduna yëpp dañoo nanguwoon ne ay sàcc lañ même kii nekk président bi moo waxoon ne ay sàcc lañ ba mu tëjlu leen ba ñu jàpp leen ñooñu ñoo bëgg doon ay candidat te président Ousmane Sonko loxoom dafa set wecc kon mënu ñooy jëm ci ay élection ay sàcc maanaam doon fakk ay candidat ba pare ki nga xam ne dafa set wecc nga xam ne alalu réew mi nekk na di liggéey ci impôt et domaine quinze ans te benn fifteen luubalut ko fa ñu ne kooku du doon candidat loolu ku ko dugal sa xel mi yow yaa bëgg ku lay nax loolu mënta nekk loolu nañ ko génne ci xel yi ba mu set wécc luy campagne ak luy programme jëm ci élection yi loolu nañ ko continuer te xam ne PROS amul lu ko teree mën a doon candidat ci élection yi ndax euh, euh, fi ñu toll nii nii nii nii nii ma wax ay toxal eh, maanaam eh, délai pa kii bi parrainage yeeg yooyu yëpp ay xalaat la yoo xam ne ñu ngi koy xalaatal mag ki ngir jéem a toxal élection yi ak yu demee noonu mag Macky moom si boppam ba léegi génneewut si xelam ne maanaam eh, mën na toogaat ci réew mi deux ans balaa mi dem moom deux ans la bëgg mooy ñaari at parce que yónni na ku mel ni Bara Dolly mu ah, ah, xawma ma xaw ban la ci dolli dolli yooyu xawma bi ñuy lekk la xaw bi ñuy naan la mu génn di wër di fu ne mu dem fa naan nañ ko may mu àggali ñaari manda ña ñaari at yónnee na xaj boobu xaj bi nekk mairie bu Dakar noonu xaj bu xonq boobu moom it mu génn di di di propagande fu ne ne nañ ko may deux ans pour mu àggali nga xam ne loolu ca kaw lañ ko lañ ko lañ ko tëggee. jox ko ko moom Bart ak moom bara moom dolli moomu xaw ma ban dolli la si comme ni ma ko waxee mu génn di def propagande parce que Macky dafa am benn problème loolu lañ ko xam mooy jamono bii ki mu war a tànn muy Amadou Ba loolu ñëpp xam nañ ko xam nañ ne moom benn candidat la war a samp muy Amadou Ba mais mag Macky óoluwut Amadou Ba comme niñ ko waxee. óoluwut ko ci mbirum président Ousmane Sonko parce que man bu fekkee man may Amadou Ba opposant bu mel ni Ousmane Sonko du ma opposé du ma nangu Ousmane Sonko di ma opposé du ma mën a liggéey lu ma liggéey Ousmane Sonko xëpp ci kaane loolu duma ko nangu man bu fekkee man may Amadou Ba ta tax xam naa ne loolu moo nekk ci moom même bu ko Macky defoon candidat bu gagné élection yi te gaw ma ne mën na ne mais même bu ko gagné woon bu miracle amoon ba Amadou Ba gagné élection yi day génnee Ousmane Sonko mën na ñëw sax def ko premier ministre wala mu jox ko ministère intérieur jël sàcc yi nga xam ne ñoo tax Macky échec sàcc yi parce que Amadou Ba xam na ne ay sàcc lañ mu jàpp leen ne leen ràpp ci kaso yi Amadou Ba bu ko Macky defee candidat bis bu gagné woon. mu ne ko démissionnel bis bu ko waxee keroog la ko Amadou Ba ne ko ràpp si kaso gi moom tamit tëj ko pour wax jooju maanaam jeex moom xam na loolu parce que su boobaa waa impôt et domaine ñooy amee réew mi su boobaa maanaam ku bokkoon ci APR wala ku bokk ci Pastef wala ku bokk ci maanaam foo mënta doon comme Amadou Ba doon na président rek ndeg yàlla tere sax laay wax ku bokkoon ci impôt et domaine parce que ñoom xamante nañ dañuy daje continuer liggéey réew mais sàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci système bi ñooñu dinañ noppal nit ñi xam nga Macky xam na loolu mais moo tax dafa am problème léegi gis nga ko ñu ngi jël ku mel ni Mame Boye Diao muy def ay propagande ci télé yi def ay ay ay euh, publicitaire di wane li mu liggéey ak li mu nangam ak nangam mais lim sàcc duñ ko wane pour lan am ko jëm a euh, contraindre mbirum Amadou Ba moo tax man dama gëm sax ne Macky bu amul pexe ci maanaam def ñàkk a def Amadou Ba candidat parce que bëggut ko mais bu si amul pexe bu koy def candidat gëm naa lool à cent pour cent ne su boobaa galgal yii muy jéem a def ci mbiri Sonko sax dina ko bàyyi parce que moom daanaka Amadou Ba doon candidat ak Sonko doon candidat yëpp benn duur bi benn la ci moom moo yem kepp te moom xam na ko moo tax léegi dana jéem a def ay pexe toxal dere bi jéem a pexe pour maanaam jël ku mel ni Mame boy Diao wala Amadou mam Diop nga xam ne moom nit ñi sax dañ koo xamut jël ku mel ni Boun Dionne nga xam ne wax dëgg yàlla léegi màgge na ak ak wérut ak sanr yi demee noonu Eh, jéem leen a defar ay propagande mais dara am moom candidat am nit xam nañ ko muy Amadou Ba eh, gis nga ko te te moo tax mu nekk ci yim ne yëpp waaye nag bu yàlla defoon nag mu am pexe ba tere Amadou Ba doon candidat bu benn bokk yaakaar su boobaa moom même buy faatu sax Sonko tamit du doon candidat loolu tam nañ ko xam. parce que loolu yëpp ci calcul waaj la parce que su boobaa day xam ne maanaam affaire yi leer na affaire yi leer na parce que affaire yi leeragut si moom ba tey mais konoon day xam ne leer na waaw li man yëpp dana ko def pour bañ Sonko eh, doon doon doon doon doon candidat loolu mooy affaire yi waaw mais daal eh, yàlla baax na ndax bu fekkee. depuis douze ans wax dëgg yàlla ñu ngi suñu waa ji di pexe ñu dem ba élection yi def lu ma maanaam cinq mois wala six mois te tey li ñu bëggoon yàlla dogalul ñu am ko man jàpp naa ne duñ ko am nañ yokk taxawaay yi yëpp yokk ngëm-ngëm bi tuuti rek incha allah li ñu bëgg ci président Ousmane Sonko mooy teg ko ci bopp réew mi loolu dinañ ko